sant yàlla baax a baax. soxna Ndumbe. soxna Ndumbe waaw. soxna Ndumbe fan nga jógee màggal si. màggal ba Touba. Touba Mbacké laa jógee. ñëw màggal si fii. fan yëg-yëg nga am bi nga dugg see ci wax dama ko ñaan ren la ko yàlla dogal kontaan naa lool barki maam Seera Fall. yaa ngi ci ngi bu ban yëg-yëg nga am en tant que jigéen soxna si tey liggéey loo xamante ne si àdduna yëpp ñoo koy coow. waaw loolu de moom am na moom wax dëgg yàlla euh, liggéey la loo xamante ni moom ñëpp koy coow di ñaan yàlla rek xëy na kenn mënu koo roy mais ñuy jéem di def lu baax rek moo am solo. lan nga fas yéene ñaan boo liggéey ci biir garab ah di ko defal ay salallaahu alaa muhammadin rek waaw di ko ko ñaanal <laughs> gudd fan ak wér rek barke maam Seera Fall <laughs> yàlla jubale ñu si borom kër yi bu baax a baax a baax. yaa ngi tudd naka la. soxna Rabi Seen. Touba. lan moo tax nga taamu man de ren am na ren ji la sama ñaar fukki at may ñëw fii waaw waaye nag alhamdulilah daal. man su ma duggee Porokhane. daal rek day damay xaw a daal dootuma am sax sama sago barke sëñ Tuubaa man dama kontaan ci soxna Ami mi ñu àndal soxna Ami si laam sëñ sang yi bu lañ àndal noo ñaanal yàlla ak sëñ Tuubaa màggal ko yàggal ko ci suñ kanam lool mu ànd ak ak wér ak wérle ak njabootam geeg bépp taalibe ci barke xam xanaa ñaan rek yàlla def njaboot gi yëpp yàlla des ci jàmm ak ba rek wér la yàlla jox leen xéwal yi ñuy teer la ba ba ñuy wéy ji suñu borom ci barke borom Touba waaw. barke sëñ Touba mu fekke ko ñun ñëpp mu fekke ko ñun ñëpp ak tal ci barke Seydina Mohamed kontaan nañu lool lool lool yal na yàlla fay barke Mame Serap Fall kontaan nañu lool. tudd maa ngi bàyyeekoo Kër Massar waa ziyaare naa dugg naa ba ziyaare maam jaara ba pare ah waa parce que comme ñun dañoo ñëw biig ci guddi ñu ne comme tey daal mooy gën a yomb nañ ñëw ziyaare bu ñu ziyaaree ba pare dem ca teen ba barkeelu foofu soog a ñibbisi loolu nag moo tax ñu teel a ñëw tey barkeel si xanaa sant yàlla rek te di ko sant soxna si parce que ñun ñi nekk si daaree maam jaare yëpp moo ñu tax a jóg moom moo tax ñu jóg mooy suñu royukaay macha allah daal moo ñu tax a jóg incha allah ah ñaanal naa sama njaboot parce que dama dem ay doom yu extérieur ma ñaanal ay papier ñaanal sama doomi jigéen ñaanal naa ñi ma àndal ñaanal sama njaboot yëpp ñaanal sama famille ñëpp nyana, ñaanal ñaanal Sénégal aussi amfi, am fi allah. ah jërëjëf tur bi naka la yaay boole. soxna Lawbe Mbaye Daara Touba Jaxaay. onze waaw onze be. dañu ñëwoon pour ziyaare si. dañu pour si soxna jaara suñu suñu soxna si nga xam dañuy jéem rek di roy ci moom suñu yaay la ñu soxna Kumba Ma soxna Gasama ñooy jéeruñu daayira yi suñu yaay yu baax yaa ngi dañoo ñëwoon siyaar rek di ñaan niñ fi bo ñaan yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp barke soxna jaara eh dugg nañ ba daanu leer jooy nañu def nañu lu ne ndax si soxna jaara barke Serigne Touba li ma ñaan rek yàlla nañ yàlla mel jéem a mel ni soxna si mënuñu ko waaye nañ jéem rek yàlla may ñu njaboot gu barke Sëñ Touba moom dootu amatul waaye nañ jéem rek suñu doom yi tegu siraatal mustaqim yàlla bàyyi ñoog suñuy borom kër bàyyi ñoog suñuy waajur ci barke Soxna Jaara jamono toll lan ngay dénk jigéen ñi nga xamante ne si dañuy doog a dugg ci néeg jéem a roy rek Soxna Jaara moom amatul kenn mënul waaye nañuy jéem rek fu mu tegoon tànkam ñu jéem fa teg suñuy tànk loolu rek la ñuy ñaan mënuñu moom waaye ñu ngi jéem saa ñu xëyee di teg tànkam fu mu tegoon ñu liggéeyal Soxna Jaara ba keroog ñu koy fekk barke Serigne Touba barke Soxna Jaara jërëjëf yéen waaw soxna si na nga def maa ngi fi Daba Ndiaye maa ngi jógee Kër Massar dama waa ñëwoon màggal ci daadi di si soxna jaara barab bi non non c'est la première fois ma ñëw Poroxaan ah kontaan naa de macha allah kontaan naa ñoo ñëwoon ñaan sunuy soxla ñaan daal yàlla na aajo yëpp faju loolu daal lañ moo taxoon ñu ñëw. en tant que jigéen mën nañoo wax xale nga yaa ngi doog a dugg ci néegu sëy lan ngay dénk ñi nga xamante ne ah, xanaa ñu jéem koo rek kenn mënul mel ni moom de waaye dañuy jéem rek incha allah ok merci.